nag la président Macky Sall soxlawul loolu damay wax ne barke Demba Ndiaye la président Macky Sall inauguré parc éolien boo xam ne benn la si Afrique de l'Ouest kon yaakaar naa ne ñun am nañ bilan bu ñu tegal Sénégal yi nañu wax li président Macky Sall di def nag jeexital bi mu am si askan bi parce que nag fii si Sall mbéy la ñu xam ku ne xam ne tey kilo gerte dem na ba 300 francs ren kenn waxatul ba ko dox président Macky Sall nekkee ba léegi. bu ñu weesoo loolu forage yaa ngi jalaa si dëkk yi tali macha allah piste rurale yi aussi du ma si delluwaat je pense que faloon le président Macky Sall en 2019 kon nag ñu war a booloo doon benn bilan yem boobu ñu wax te ak kanamu askan bi ba xam ne kuy liggéey damay wax ne ñii ñu coow gënuñu doon patriote ñi nga xam ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak le président Macky Sall gënuñu doon patriote le président Macky Sall parce que réew nga xam ne dañ ko doon xool naan suñu suñu sët yi ñoo koy jëriñoo tey muy ni ko Sénégal stade bi nga xam ne récemment moom la teg pose première pierre bi gis nañu ko parc éolien bi wax naa ko sànq moo xam ne muy muy teg bët la nañu bàyyi xiiroo beeg ñaayoo bi ñu ànd bu ñu naw teg ak ko ndax le président Macky nag est un patriote doomam yaa ngi fii Sénégal fii la ñu ba am nekk am te bu ñu jàngee école wàcc dem jàngi kon kooku seen gën a kooku du Sénégal kon nag bu ñu koy Sénégal nag di liggéey li muy liggéey ñun ñu ne si parti bi nañu booloo def benn di lancer un appel à tous les autres responsables mu ànd di dem benn liggéey le président Macky Sall parce nag nit ki du kon nañ gëm yàlla xam ne yàlla mooy joxe te ànd woon benn maa ngi nag remercier femmes département bi yëpp bu ma jeexal remercier ma leen. madame présidente ñu ngi koy àndal au maire de Tawa ñu ngi fi Gandiaye ñu ngi fi ñu euh, ñoom ñëpp femme yëpp muy njéejeen si caara ñëpp am fi maa ngi remercier ñëpp di leen gërëm di leen sant di la wax ne présidente Awa Gueye am xaar yàlla te duñ ko am yaakaar naa ne ànd bi dina neex parce dara ñaaw fi woon lépp a rafetoon leen di jaajëfal di leen sant di gërëm ñëpp wasalaam.